mbokki amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war ànd ak jàmbaar Wrestling Academy ak 26 unités ya ca parcelle yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war a daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko wër waa seen affiche point com nag dinañu doxal pay per ko bëgg a rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon book daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat combat Papa Sow Siteu nan nga ko gisee. Toumane doxalal doxalal Elton. waaw Toumane maa ngi lay maa ngi lay ziar. naka mu maa ngi lay delloo ziar bu baax maa ngi sànq sa rek. yaa ma a xam. Eh, Macky Macky noonu la mel mais ñëwal ci combat Papa Sow Siteu bi. waaw waaw waaw combat Papa Sow Siteu. Hmm. combat xale la ak mag ah, parce que vraiment combat Papa Sow lu bon bon jiite na ko si ay douze ans wala quinze ans ci làmb. Mhm. combat la bi nga xamante ni te Papa Sow ku nekk xam na ne mbër bu mbër bu mag la mbër bu mën a bëre la. Mhm. Siteu mi ngi si yoonam di dem. am ginnaaw nekk combat bi nga xamante ni dina neex dina naxaree dëkk Siteu trop parce que Papa da dafa jóge Fass. créer lu bees. combat bi am lu mu ko jaral. parce que fi mu jógee ñu ngi koy toog di ko xool. kon combat bi dafa nekk combat bu am solo ci moom Siteu tamit combat bi dafa nekk combat boo xam ni tamit waru ko ñàkk kon combat boo nga xamante ni daal ku ci wax da ngay la rek waaye combat boo xam du yomb daal combat bu metti la ci ñoom ñaar ñëpp. lan ngay gën a xaar ci combat bi xeex wala bëre lan ngay gën a xaar dimanche incha allah ci diggante Papa Sow ak Siteu. non ku ne xam Papa Sow day bëre di xeex Siteu Siteu tamit. xeex bi arrangé na ko bërëb bi arrangé na ko mais nag bërëb Papa Sow pour man moo gën a ñor daal. <laughs> Papa Sow moo dàq bëri quoi. waaw pour moo gën a ñor mais Siteu xale la te dafa nekk si yoon te dafa am confiance si mën na daan ku ne. <laughs> waaw te du ragal vraiment combat la boo xam ne daal ñu leen di ñaanal ñoom ñaar <laughs> ba bis ba kilomètre gañ. Euh, Toumane boo amee loo koy laaj ci combat bi. waaw li ma ko bëgg laaj mooy moom en tant que mbër dafa am lu ñu seetlu ci écurie Fass mooy ku mës a jóge écurie Fass ber sa daara da nga da nga mhm. da nga échoué. mën nañ ci lim Zallo mën nañ ci lim Rock Mbalax est-ce que xalaatoo loolu dal Papa Sow. non Papa Sow xam du Papa euh, li dal ñooñu man gisuma mu dal ko ci làmb bi parce que Papa parcelle ak euh, ak ak Fass ñoo yem si moom parce que moom yàgg na fréquenté waa waa parcelle. kon du du gan quoi ci man pour man euh, pour man Papa Sow làmb ji mu nekk mu bëree ko Fass ak mu bëree ko moo yem ci moom quoi. parce que Papa Sow ak ñooñu pour man bokkul quoi parce que vraiment moom yàgg na yàgg na entraîné donc waa parcelle yàgg na bëree ñoom ensemble parce que ñoom c'est union parcelle boobu loolu yàgg na du tey. kon mm-hmm. gisuma benn handicapé bu nga ko mën a def ci làmb bii mu jëm nii mm-hmm. favori. cent pour cent pour cent yi bu leen ko doon séddale. Oh, combat bi moom su ma doon papa papa saw ay combat yu mag yu mu def mooy favori. Mm-hmm. yow yow yow ci palmarès bi nga joxe favori. papa saw moo ëpp ay combat moo gën a si palmarès. nga joxe favori. non mais même bu dul palmarès nit sax bu la ci dara nii ku ku la jiitu su néeg néeg bu lëndëm moo wax fi ngay mais ku am ci lu mu jiitu moo la jox expérience. mais Elton est-ce que favori ci loolu lañ ko war a joxee tamit favori ce que dañ koy joxe ci nit moo la njëkk a bëre rek dañ koy jox favori. Tapha Gueye moo njëkk a bëre ay combat ci làmb ëpp la mooy sax favori. par exemple Tapha Gueye ak Balla Gaye waru ñëw bëree ah ñu jox Tapha Gueye favori. loolu c'est ça. ma ne nit est-ce que da lay jiitu ci làmb rek ngeen di bëre moom mooy. favori Papa mooy favori soo déggee Papa Sow mooy favori Papa ñi mu bëreel. non weddi mu nekk sax favori ma sax mu nekk favori. mais dama ne. bu gisuma nit gisuma ni sax du du favori man weddi wu mooy favori wala Siteu mooy mais dama ne est-ce que nit da koy jiitu ci làmb rek yow yaa nekk favori par force. question la du question ko da nga koy jiitu si làmb yaay favori mais Papa Sow dafa liggéey dafa def ci làmb nag de. Mm-hmm. dafa dafa dafa dafa bëre dafa dafa bëre ci làmb dafa saf ci làmb. te bëri na fee ku nekk. Mm-hmm. waaw. donc ce jàmbaar la xale la vraiment mi ngi si yoonam di dem. Mm-hmm. mais Papa Sow man. xaaral xaaral dëgg la. dëgg la dëgg eh, la eh, Toumani ah waaw non de que Elton euh, moom. Cobra moom mi may Cobra moom mi ngi may message rek mi ngi may message dama bëgg a dugaat mais man dama bëgg ñu yem ci combat bi rek waaw nañ yem ci combat bi rek. booy mais mais Elton Elton Elton jàppante bi Siteu a Papa Sow ñu jàppante kan muy ëpp avantage. mais si jàppante bi nii ñoom ñaar si biir jàppante. Mhm. ñoom ñaar ñëpp am nañ avantage ah parce que ci te gars dafa tële tëlewul bëre mhm. na fi mbër ci bëre day jàpp am na am na jàpp ko am. Mhm. donc kat moom ci biir xeex bi Papa Sow buy yow da lay ñu jàppante si ay affaire de sàcc pour soxla yooyu Papa Sow bëre yooyu da koo ay affaire comme ku tax lu wër leen affaire yooyu mais si te njool la. te tëlewul bëre. xaaral damay wax waaw Lamine bu fi dugal kii waay. waaw Lamine yow kii. non yem ci combat bi rek non non non non. waaw waaw waaw non non leen ma rek. ñu yem ci combat bi ku ci nekk wax sa xalaat. nga défendre. li ngay wax nii rek ma sori rek. non non non dimbali leen ma rek ngir yàlla nañu wax ci combat bi rek Papa Sow parce que moom dafa am lu wax sax. Cobra. waaw Lamine kat nga ne kan mooy favori yow. kan ah? mooy favori kan mooy ah, man Siteu laa jox favori parce que Siteu si yoon nekk day dem comprendre nga te Papa Sow moo jiitu Siteu ci làmb comprendre nga te loolu da ci joué te bu ñu mhm. yaakaaree ne Siteu mbër bu ko song mën na koo daan mu ngi juum barke resilaay li ma wax du deñ Siteu day bëri suuf day bëri mbapat comprendre nga Papa Sow daal lan mooy avantage am ci combat bi mooy mu tey daf ndànk loolu daal laa mën a wax mais bu ñëwee bëgg a sorx sorxee Siteu day ñàkk combat waaye fay. yaa ngi si jàmm borom baax. Elton moom du ma ko nuyu quoi parce que tey dafa ñëw di ma sànni xeer garaawul. xaaral xaaral. waaw loolu daal laa gis si combat bi quoi surtout Papa Sow man loolu laa ci gis. dëgg ok. xeex bi nag Elton xeex xeex. ah xeex bi kii benn loxo kii ñaari loxo lay hmm, kan mooy benn loxo. waaw Siteu boo gisee xeexam surtout moom boo gos bi lay ëpp lu muy lu muy lu muy tàllal. Mm-hmm. mais Papa Sow day ñëw mm-hmm. Sow. ci biir xeex bi moom xeex ak Siteu ah, bu dee xeex gaw ma ne dina dëggal xeex bi bu baax. parce que bëri naa gën moom lay ko. arrangé tuumaale parce que lamb bii mu dem nii lamb bëri la. eh Pod ñu ngi lay ziar Pod Pod Pod da nga waroon a dugg décortiquer combat bi ko jël ko jël no non non demandé wul demandé foog mu def demande. oh waroo woon a génne mais est-ce que xeex bi tumaan day ñëwaat dafa foog ni pot de pot dafa def demande. waaw lay bañ tumaan dem Elton. Elton Elton. <laughs> xeex bi est-ce que gënul arrangé Papa parce que man dama gis chaque jour ay nit yu jàpp ne xeex bi Siteu la Siteu la gën a avantage mais xeex bi est-ce que gënul arrangé Papa non mais xeex moom xam nga ni euh, xeex xam nga ca làmb moom xeex moom pour wut buntu la rek. ñoom ñaar hmm. ñëpp ku ci ku ci concentré wu si xeex bi mën nañ mën nañ la sàcc daal la. ok Papa Sow même bu ñëwee di xeex ak Siteu sax du xeex bu mu gëm lay def. Hmm. kon yaakaar nga ni pour gëmloo. kon yaakaar nga ni Siteu mën naa andi xeex Papa Sow mën na indi xeex Siteu sàcc ko jël ko ci suuf. non Papa Sow mooy Siteu moo moo moo buy xeex dafa war a contrôlé wu bu baax a baax. Hmm. ok ok waaw Papa Sow buy doo bëre ak njool di xeex ak di taxaw di taxaw fu koy jege. Mm-hmm. da koy approché. Mm-hmm. Mm-hmm. bëre ndaama la ak njool quoi vraiment. bëre xam ne yow yaa ëpp avantage. combat bi daal man moom lu mu mën a wax mooy dogguma sa mais problème bi mooy Lamine. man li ma la mën a wax hmm. lenn la mooy Siteu ak yëpp defet arrangé wu leen ñoom ñëpp defet hmm. arrangé wu leen wax dëgg yàlla hmm. parce que Papa Sow champion la Siteu champion la Papa Sow kenn naam laamul champion mais instant bi dafa war a sóor lu bëri parce que benn écurie Fass ah xam nga écurie bu bees bu mu dem yooyu yëpp war na koo sóoraale ci combat bi kon moom defet waru ko ci combat yaa may dégg waaw euh, waaw Siteu combat bi nii bu ko daanee bu bu fekkee ñàkk na combat bi mën na mën na ko yàqal lu bëri ci làmb te man gëm naa day daan incha allah. gëm nga day daan waaw mën naa loolu waaw loolu laa si. dimanche dimanche dimanche yàggatul incha allah rabbi. lépp dina mais hmm. man moom jàpp naa ne Siteu day daan quoi. loolu moom. ok ginnaaw suba moom loolu laa gëm daal. wax dëgg yàlla. ok ok ok mais nag Papa Sow contre ma la def na lu ne ci làmb mais. problème bi mooy man Siteu laa jox favori. Siteu mooy sa favori. waaw. loolu sañ nga ko. wuute gis-gis mooy waral marchandise di jar. waaw loolu laa mën a. Falaye de dama na tëdd mais dama laa gis mais man xaaral ma dugal tuuti rek. waaw Papa Sow Siteu Papa Sow Siteu pour trois minutes. Hmm. waaw hm. maa ngi leen di ziar ah. E, e ziar hm. Altona waaw maa ngi leen di ziar jàmbaar champion. naka ngi a doon. combat dafa mën a bëre. wallaahi wallaahi Lamine waxoon naa la dafa mën a bëre de. lu leer doo seeyal si arène xam nga bëre arène mhm. ak mbapat ak contact bokkul mhm. lamb lamb lu assuré ngay def mais Siteu man dama ko seetaan euh, sibile Tafa Gueye maa ngi fa woon mu bëre bu rëy moo jël final mhm. sama kan di daan ay ndaanaan yoo xam ne nii nga mën bëre la daan laa wala am te xeex bi tamit am na ci avantage Siteu mi ngay góos boo xam ne nii bu la ko dóoree sa waay. waaw bu dalee rek say eh, nga for mm-hmm. waaw am na xeex bi bu jël xeex bi yëpp jox ko Papa Sow Papa Sow xeexam day mamb. day mamb góos droite waaw day mamb góos droite lay ñëw lay dóor te bu ko dóoree Siteu Siteu bu ko liiree rek mun na ko song bu ko paketee lamb ji day jeex. Mm. Siteu est-ce que est la Siteu est-ce que la. si dina songu boo ko boo ko dóoree euh, day song gisoo ko saraanoo moo kii moo moo Sa Thiès. waaw jël na ko daw dóor di dóor mu jël ko jël bu baax. boo uh-huh. ko àgg boo fond la ko àgg. Uh-huh. mais Sa Thiès a mën a bëree moo tax mu daan ko mais waru war rëcc foofu noonu. ok. te Cité nu mu ko Cité nu mu Cité Papa Sow dafa bëri. Papa Sow bu mu mbambee uh-huh. rek Cité bu wàccee bu ko paketee rek day jeex tàkk. mun na ko sax buddi ba taxaw. Siteu mën na buddi Papa Sow ba taxaw. billaay bu Papa Sow mambay ci kawam bu mambay ci kawam il góor droit. da ko yanu de mun na ko mun na ko pakete ba yéen ko taxaw. waaw wóor la wax. sa ndaama hmm? ak njool. Mhm. leeraa la wax. moom kay dimanche yàggatul Lamine. waaw leeraa la wax te te Siteu combat bi nii. bakkanam la ci teg Papa Sow Papa Sow da koo yokk jom. Mhm. Papa Sow da hmm. koo yokk jom si combat bi mooy signature bi amoon stadium. Hmm. mu ne ko sa tànk yi nii ma gis nekkul moo may daal. Mhm. Mhm. Sidi dafa lëlu liggéeyaat mhm. pour nga gis ko sax problème la. ñeme entraînement jiidi. parce que boo xoolee boo xoolee Abu Ndiassé nga xool Mama Lamine gisoo Siteu nga xam ne woo Siteu am doole. foofu la ñuy dëgg la dëgg la dëgg la da ngay xool si période période combat Ama Baldé ak Malick Niang. Euh, waa Pikine ñu bëri pour ñu gis am problème la mais bu ñu ma gisee gis maala wala gis keneen ñuy àndal rek dañuy xam ne mbër am na doole. waaw ci seen forme waaw ci seen forme. mën nañ ci natt forme mbër yi dañuy gisee dañuy gisee natt mbër yi. dëgg la loolu am na dafa laaxatu. Hmm. ñuy liggéey na combat bi jaral na ko combat ay kii de ay ay soixante dix pour cent ak yooyu hmm. lan la ah, affaire lan la. cinquante cinquante la amul favori yow pour ah, yow. ku ne mën a daal sa borom ah. amul favori pour yow. non non non non gisuma favori de. ku ne mën na daan sama gisoo ci lan mooy sensu sens ay ci combat bi. xeex bi bëre bi. waaw xeex bi bu doon bu moom damay wàcc toog samay tànk xeex ak moom. Mhm. waaw góos. ndaama booy bëreeg moom góos nga koy jox. Mhm. góos appel ba droite bi leer nga indi droite boo indee droite rek dund day feeñ. dund day feeñ. waaw xeexu xeexu avantage bu Papa Sow lan la ci ci combat bi. mooy combat rapproché mu jege ko. jege ko. waaw ah, jàppanteeg moom. aj gàrram ci xeex jàppanteeg moom bëre. Mhm. kon bëre bi avantage bu Papa Sow la. am na am avantage. Mhm. Mhm. ok. war a war a jege woo ko ci xeex daw jàppante moom bëre. parce mm. que moom mën ci gën a yaatalaat incha allahu rabi trois heures jot na. waxtu bi jot na. kontaan naa heures moom <laughs> ah, kon instant cinq heures de temps cinq heures moom quatre heures jot. ok macha allah am na solo. Hmm, France. macha allah loolu am na solo suba dinañ gën a yaatal. waaw kontaan naa Falaye maa ngi lay nuyu bu la kontaan nañ ci bi vraiment. ñu ngi jël ñëpp nag jaajëf jaajëf jaajëf loolu dara loolu dara <laughs> ñoo xam amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war a ànd ak jàmbaaru wrestling académie ak 26 unités ya ca parcelles yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war a daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko wër waa seen ku ko bëgg a seetaan rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon boo daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat